mu mbër hmm. daal day nekk dof. ay ki muy bëreel ama neex. neex lu mu gis buub ko moom. lu mu gis la buub waaw. Ah. moom moo doon formal. Mhm. moo daan formal yaa ngi fàttaliku formal nag. men gànna ca. wallaahi ca euh, ba. formal men waaw. gànna seeraas ba gànna. yaa ngi fàttali combat boobu bu baax a baax. ba mu koy buub. Mhm. lépp la jël si moom. waaw. tension ama neex. Eh, ama neex dafa dafa am décision moom tam. dafa am décision moom boolewut ak lenn ak wax. Uh-huh. waaye ku seen ku ne. Uh-huh. soo moytuwul laa lay wax ni ah ñàkk sa combat. après nga am booy ñaar deux rëg rëg. waaw combat ba wax ni noonu nag. Uh-huh. combat boo xam ne nii nag. Hmm. combat bu mag la boo xam ne nii. ah ñoo ngi ñaanal rëg rëg nag fi mu jëm. yàlla na fa yàlla defal ndam. waaw lu sedd guy ba benn gàllankoor bañ koo bañ koo bañ koo dal. amiin amiin mu am. mu gañe waaje ci gañe bu gaaw. Mhm. waaw ndax parce que tam suñ ferte la. incha a ñëw nag compétir mhm. fii nag. waaw ak Boy ñaa ak Boy waaw combat bu boo ñu ko doon jàngatal lu ndaw rek. Boy Niang de Reug Reug. wala combat bu mag la. combat bu métti lay doon. Mhm. Boy Niang nag fii lañ koy xamee nag. Boy ñaa nag Boy Niang ma ma xamoon. fii nag laa koy xool nag. waaw Boy boo xam ne nii nag day riposter. riposter waaw fi mu moom. kale yim xamoon yim defoon yëpp lay gars yi naan nañ ko léegi nag en avant nag la war a la war a indi nag. dafa war a changer stratégie. non non loolu moom. tafaagee loolu la bëree ba bàyyee laafam salaamaaleykum nga seq benn pas. Mhm. dem gauche droite nga dugg ci gardam ñu dóor la croisé daw jàpp la jàpp jàpp la pëtëm pëtëmee la daan waaw xam booba techniciens yi bëriwuñ. Mhm. tafaagee moo am ay techniciens ñi ci ñëpp dañuy lekk cere rek ñëw bëri si. waaye léegi. Ah. làmb ji ñëpp ko jàll jàng ngeen sujet. Mhm. jàng boxe. waaw ah jàng cercle de défense. kon mm-hmm. nag mm-hmm. fi mu toll boo ñaa tey waaw war naa mën a nag affronter. waaw nam daan boxoo mm-hmm. ah, ah. si du mu la déggee dafa da nga bëgg léegi muy jël ay responsabilité wala dafa jot dafa jot waaw mbër soo amee million mm. am encadrement bu baax ah da ngay jéem a nag dem arlu mm. waaw lamb il faut ngay xeex waaw ku méttiwul waaw soo ko soo ko jëlee avant ngay ñëw hmm. soo ñëwee war ngaa mën a xeex te nag moom xeexkat la dafa war a man a xeex te turandoom xeexkat la hmm. dafa war a ñëw riposte waaw dóorante ah hmm. jàppante waaw loolu la war a def ci ko moom ndax parce waaw Reug Reug foofu la jëm bala mu koo def mu def ko loolu la war a def. ci boobu combat. waaw loolu tax muy neex boo ko arbitré woon. ah ay yow su ma ko arbitré woon tam laa lay wax nii day neex rek. day neex waaw waaw. <laughs> donc Boucar loolu ñu demaat si beneen sujet mooy sujet bi mooy ñu ne Reug Reug Boy Niang 2 Ada Fass Lac 2 un méga face to face à Abidjan le premier décembre fële ci Abidjan fële ñeenti champion yi di daje. waaw parce que xam nga la 30 novembre mooy combat MMA yi nga xamante ne tey waaw Eric Nation tëgg na ko. Mhm. vraiment Arafas war si bëre Albouri am ci combat Petit Lo am ci combat Tafsir am ci combat. Mhm. Euh, ak Serigne Ndiaye numéro 2 am ci combat. Ah. mu war a nekk la 30 bët set nag le premier incha allah rabi. Mhm. ñu bëgg fa def aussi benn face to face bu mag a mag a mag boo xamante ni tey. Arafas dina fa jàkkaarloo ak Lac de waaye aussi Reug Reug aussi yaakaar naa dina fa jàkkaarloo ki nga xamante ni moom moo di Boy Niang. waaw naa ne événement bu neex a neex. a la événement bu mag aussi la war a nekk. Mhm. loolu yaakaar naa tey na ko gars yi xaarandi. <laughs> matinal de sport xanaa war na fa dem defi émission. waaw le 30 le premier. waaw dans les normes. Ah, dans les dem matinal de sport defi foofu suñu émission ah. dans ngi siy déglu daal rek. Mhm. Ah, kilifa yi daal lu ñu wax daal ñu xam ne. Eh, buzz loolu la dagal bee. waaw waaw dañoo bëgg dem. Ah. waaw mais lan ngay wax bëgg a dem. da ngay dem lan mën a wax si combat bi. Euh, Ada Fass Lac 2. waaw Ada Fass Lac 2 Lac 2 daal gannaaw mi ngi na mu commencé woon moom tam mhm. na ko maama entraîné woon defoon ko ci moom da ko war a jëliwaat ak nu mu ko war a mën a jëliwaat la la maama defoon si moom waaw maama da ko da cee defoon ci moom vivacité vivacité dëgg la yoo xam ne ni moom yaa xam làmb noonu la Lac doon bëree waaw moom parler de carrière yi nga xam ne maama da ko koo bindaloon bi mu ko koo bindalee ba pare mhm. man la ñëw ne ma kaay lii rek lii def booy bi pour mu koy entraîner moom soo ma déggee mën na ko wax xam nga tam toog ci télé di wax lu la neex man waxuma loolu mm-hmm. Mm-hmm. moom su ko woo déggee benn fooy la ko dégg ne lundi dana def matinal dana def musculation def euh, boxe dana def contact mm-hmm. ngi dégg di ma ko limal ba ma ma ma yow soo ma waxee lii la ak lii man ko nii baax waaye lak bu njëkk soo ne moo gënoon a gaaw moo gënoon a gaaw laa la wax ni sac siraat ah lak foo mën a ni dana la pare ba pare laa wax ni remise la ñëw kon ana technique yi nga ko joxoon mm-hmm. waaw deuxièmement tam gis nga ponkale ponkale baax na trop waaye dëgër moo ko gën mm-hmm. lat bi muy ñëw laa la wax nii taay bi mu yoroon dafa sew mm-hmm. dafa sewoon dafa sewoon ruuj ab ab débino yu wow yaa ngi dégg mm-hmm. kon lat biñ koy booleeg eh, nan lañ ko waxee mburum faas moomu Babacar Diallo non non Batika Batika waaw dama ne ko mama yow da jaay booy bi école euh, dem euh, euh, géejuwaay waaw la njëkk a de grand Canada ba waaw yaa ko yow da non foofu la ñu bëree grand combat bi ndax parce que booba. waaw waaw Amadou Bari la duubalees du Bari boobu duubalees def na fa sibile man maa hmm. jël luur ba Batika jël lese ba Batika da nga ko doon wóor ba mu taxaw ne la yow lekkoo. di taay Batika dafa mënoon bëre. laa ilaha illa dama ne làmb waxul dëgg Batika dama ne kenn mënu koo daan dangay koy wër ndomba mu taxaw. lékkoo mhm. dama ne la combat lamb jooju ñi dëkk géejuwaay duubalee premier cible bi mu def mhm. mi ko defee buntu stade ba man maa jël euh, maa jël grand combat ba kii Mataga jël beneen kii moo jël lese ba Mataga mooy bëri man luur laay bind saa su ne Bougar nekk sunu champion bi c'est un grand champion Mataga mooy Mataga kenn musu koo yëpp ci yëpp ah. kenn musu koo yëpp ci lamb dama ci gën a neex nag bëgg sëñ Tuubaa tam boole ci. ndeysaan waaw. waaw uh-huh. waaw taalibe la waaw. Batika uh-huh. xam naa ne uh, génn waa gi waaye dama dama koy teet uh-huh. ñu yaakaar naa ab comédien la wala nangam nangam waaye ku mën a bëri la te ku mën a am dool la moom doomu si yàlla sa ke faatu te mu nekkoon parcelle te jàngaloon ñoom papa Sow. ñu ma xari mbeeg kooku laa ma sa gis laa ne këram. Mhm. Euh, ak euh, Boynar Boynar yooyu ñëpp. waaw Makari Meng moo leen kii ak mhm. Ousani. Makari Meng moo leen formé. Mhm. man amoo sens ki internet nag man xam nga dama na ambira. léeg-léeg ma dem ba kër ga. kër Makari Meng moom nag sama waay la. Ah, ndax sama bokkum njaam yàlla waaye. jour bi ma gisee mu gis noppi ñay yoo xam ne nii ah soo ko doon soo ko doon jox fukki nit duñ ko ma Makari Meng xoolal moom la te këram. su xëyee suba moom lay arrasé di ca sélectionné ba woo koŋ waaw uh-huh. waaye Batika yàlla moo ko mayoon doole joo xam ne nii ah comme na la toogal fi nga toog da lay ba mu neex la laa wax ne jële laa daan la mm-hmm. waaw kooku mooy Batika mm-hmm. kon loolu keroog ba ko Lac de Guiers euh, Lac mi daanee mm-hmm. man Lac de Guiers kenn mënu koo nekk champion maa ma ne ma lu ma la waxoon xam nga gars yi lan la wax waaye gàllaañ la ko jàppee xam nga Batika boobu mënu koo jàpp ndax Batika mm. dem na bay jàpp ci Senghor euh, dàkki lande guerre yi ñu koy dóor ba mu ne këpp mm. ma ne non sëriñ am na mm. booba nag soose yi dañoo njëkk a jóg ci sëriñ ñun dañ doon lekk rek waaye soose yi dañoo njëkk ci ñaan ñoom bala ngay ñoom seen dañoo doon entraîné ba wow ba pare njëkk ñu ci ñaan waaw loolu lu am solo la ñun nag xamuñu woon ñaan mm-hmm. waaw loolu da ngeen doon dem ak sañ-sañ ak doole waaw waaye lande guerre moom sax laa wax ne li mu gaaw a am ci ñaan Balla sax gaaw a ko war a amee waaye Lac de Guiers dafa yeewu mm-hmm. ci mama njëkk a xam làmb téye ko ba pare mu respecté ko mm-hmm. tëddal dem tëddi heure entraînement dem entraînement yaa ngi dégg mm-hmm. ayoo contact ñëw contact la mama moom du la may dara ñaar baat ñett mu xeex ak yow waaw même su lay jàngal sax laa wax nit ki te mama dafa deretam ci dóorante moom da koo neex waaw mm. xam nga tam booba géejuwaay tam tàppe dafa dëkk mm. Mm. il faut nga mën a xeex ah. waaw ñu respecté la wala soo doxee sax soo yoree dàll yu dàll yu rafet surtout ñu futti la waaw Ada Fass a am si lat waaw Ada Fass li mu mën a am ci lat mooy que ne am na staff bu baax xale nag soo teelee am xaalis sonnoo ñun dañoo sonn doog am xaalis dañoo yàgg ci làmb sonn ci la kon nag xale boo xam ne ni yow sonnoo ci làmb am nga te xaalis doog ngay wëri da nga war a fob sa bakkan bii def ko ci sport bàyyi caaxaat bi mhm. gis nga nit ñi xale yi day leen wax dëgg mhm. gis nga dee ci dëgg moo gën fuuf mhm. di wax lu dul dëgg ba dee ca te boo yii duñu dara ñoom ñëpp ay nit lañ te ki ngay encadré muy am di di di ci lekk di ci di ci teral ay ay xaritam ak ay waajuram. waaw wax ku dëgg. dëgg dëgg la. ndax koo fi waxul dëgg laa la wax nii su Euh, su bis ba euh, suñu demee ba ca kanam mu xamoon da nga koo doon jaay. Mm. mooy sa yaay première noonu. kon nañu leen wax dëgg soo mm. yore ñi am ay milliards sportifs yi am ay milliards. Mm. dañ leen di teg ci code. tëddal tëddal lii nga war a def lii nga war a def. man de li ma nekk sama école lit bii ak Pikine ba mu fi nekkee. heure entraînement ku ñëwul doo entraîné. soo demee ba nanguwoo entraîné ñëw di ma seetaan tam doo doo doo doo entraîné. doo ma seetaan demal seen kër ba mën a ñëw ñëwaat. noonu laa bi ma nekkee Pikine tam yiti fi loolu laa doon def ñëpp doon am ndam. sama école de bi tam noonu laa ko yore woon. booy soo mënta ñëw demal waaye nag soo amee liggéey dama liggéey